Sénégal jotoo dund muy notamment bi amoon contre le gouvernement du président Mamadou Dia en 1962 ak bi nga xam ni moo amoon 26 euh, décembre 2012 te groupe euh, parlementaire liberté et démocratie euh, dugaloon ko ngir daaneel gouvernement bi Abdoul Mbaye jiite woon wante boobu mujjul jàll contrairement ak premier bi tey nag ñu war waxtaanee yooyu motion de censure mais contexte yi ñu amee woon pour jeexal ci bi amoon barki démb am mbégte lool dalal ci Youssou Diallo moom moo jiite euh, club Sénégal émergent monsieur Diallo ñu lay nuyu di am mbégte lool dalalaat la si si démb ak tey. voilà jërëjëf Adja Fatou maa ngi lay nuyu di la siyaare et puis di la ñaanal euh, jàmm ak salaam di ñaanal waa Sénégal yëpp. Mm-hmm. et di am kontante lool chaque fois bu may daje ak yow ci waxtaan yu demee nii mm-hmm. jërëjëf. jërëjëf yow itam ci disponibilité bi alors ni ma ko waxee euh, dañuy waxtaanee motion de censure yi tàmbale ak bu 1962 lan moo xewoon. ba ñu dugal motion de censure ngir daaneel gouvernement euh, bu président du conseil Mamadou Dia. waaw jërëjëf jërëjëf defe naa foofu il faut ñu xaw leeralal suñu mbokk yu tuuti. e li koy waral parce que euh, bu ñu nekkee ci li ñuy wax république nga xam ni moom yillaam mooy yamale nit ñi maanaam ci wàllu yoon amul benn sénégalais bu gën beneen. ci wàllu yoon maanaam ñëpp ñëpp dafa yemale citoyen yi et ñooñu yem nag ñoom la ñuy wax citoyen léegi nag bu ñu ñëwee ci li ñuy wax euh, démocratie nga xam ni moom mbirum li ñuy wax liberté maanaam sañ-sañ ak euh, wareef ak yelleef yi nga xam ni moom la euh, doomu aadama yi nekk ci dëkk bi di am daf leen koy jox waaye joxin boobu nag bu ñu jëloon liy sañ-sañ yëpp ñu jox ko benn kuréel ci li ñuy wax état parce que état mooy kuréel yi nga xam ne ñoo ëmb réew mi maanaam buñ koy wax ci tubaab moom la ñuy wax institution donc dafa am ki nekk ca bopp ba ñu koy wax président de la république ñu ni moom mooy non seulement ki nga xam ne moo jiite exécutif mais aussi moom mooy ki nga xam ni et mooy chef de l'état kon nag lu jëm ci parlement maanaam député yi li ñuy euh, seen pouvoir di séparer ñoom député yi ak wàllu yoon loolu mooy li ñuy wax ñetti pouvoir yi maanaam ñetti euh, kuréel yi nga xam ni ñoo ngànk réew mi e ki nga xam ne nag mooy président non seulement dafa am ci benn kuréel boo xam ne daf ko jiite ñu koy wax exécutif mais dafa nekk li ñuy wax président de la république chef de l'état maanaam kuréel yooyu yëpp seen kilifa fi ñu dajee mooy président bi ñu Sénégal yëpp fal kooku donc dafa jar ñu leeral ko e léegi nag ñu ni président boobu comme que mooy chef de l'État aussi yore exécutif bi il faut que mu am et puisque nit matul il faut mu am ci euh, kuréel yooyu nga xam ne ñooy institution yi nu ñu def ba nga xam ni dana am li ñuy wax équilibre maanaam muy nekk loo xam ne daal du dara du jéggi dayoo jëm ci benn boor ku ci nekk daal di mën surveiller sa morom loolu di jàmmi réew mi. bu naree ëppal am lu ko arrêté. bu naree ëppal am lu ko arrêté ci loolu nag la ñu defee ni président moom mooy jiite exécutif bi moom mooy exécuter budget bi moom mooy proposé loi yi mooy représenté réew mi ci euh, ci bitim réew moom moo yore mbirum défense moo yore mbirum sécurité réew mi moo yore mbirum économie moo yore et cetera et cetera et at mu nekk il faut que jumtukaay yi nga xam ni moom la war defee loolu muy budget et mu am ñoo xam ni moom dana ko proposer waaye moom du nekk ki koy dëggal ñi koy dëggal mooy jàmbur ñi nga xam ni sénégalais ñoo daje ñoom tamit comme moom ñu fal leen ñu leen di wax ay député ñooñu donc bu proposer budget ñooñu ñoo koy dëggal ñooñu aussi ñooy surveiller ni muy exécuter budget bi ñooñu aussi ñooy contrôler maanaam liggéey bi nga xam ni moom la gouvernement am di def léegi nag bu ñu demee ba ca biir ba nga xam ni ñooñu kat eh, kontaan nañu ci liggéey boobu muy def ki nga xam ni mooy njiitu jëwriñ ñi ñu koy wax premier ministre et mën nañ ko léeg-léeg bu ñëwee def discours de politique général ñu décidé euh, defal ko li ñuy wax votu euh, motion de genre de confiance un vote de confiance et li ci ëpp nag duñ ko faral di def bu ñu waxtaanee ba pare ba nga xam ni eh, d'accord nañ ci et noppi googu nga xam ne amul kenn ñenn ñu jóg nii ñun kat d'accord ñu ci lii dañuy def motion de censure ñooñu ñu def ko donc motion de censure mi ngi jóge ci et nu e, jëwriñu réew mi yi nga xam ne ñooy député yi di natte ci lu baax wala ca safaan ba liggéey bi nga xam ni moom la gouvernement def waaye nag léeg-léeg du doon rek ci loolu parce que amul loo xam ni yoon daf ko tëral ni kat bu lii amee mën nañu def la ñuy wax motion de censure motion de censure du du du dara lu ma ko doon firi ci wolof dafay tekki e ñàkk kontaan ak surtout ñàkk wóolu gouvernement bi ci ñi muy ni muy doxale soit euh, li mu waxoon def ko wala soit ni muy doxale méngoowul ak yoon waaye nag leneen daf ci rax léeg-léeg euh, euh, ay wuute ci politique mën na ko indi te léegi dafa mel na sax loolu moo gën di sabab li ñuy wax motion de confiance bu ñu dellu see ci li ñuy wax 1962 gis nga boobu benn parti euh, euh, moo presque ëppoon ci ngànk nguur gi booba kenn supprimer gul euh, yeneen parti maanaam parti unique amagul yeneen parti amoon na ci réew mi ay pra pra amoon na Sénégal amoon na PAI amoon na et cetera yu mel noonu ñoom nag ñoo ëppoon doole ci assemblée daanaka presque député yëpp ci ñoom la ñu bokkoon waaye ba ñu demee ba ca biir ci biir parti boobu ngànkoon nguur gi ci la amoon ay wuute ci gis-gis ci diggante Senghor ak ki ñuy wax Mamadou Dia et ba loolu amee nag lenn ci député yi wala la ci ëpp euh, ci njiitu président euh, jëm si yàlla ji Lamine Gueye et maître Lamine euh, ñoom ñoo gis ni daal dañu war a euh, daaneel gouvernement bi nga xam ni moom la Mamadou Dia euh, jiite et kii président Senghor ànd ci ak ñoom e ñu déposer motion de censure léegi nag ba ñu waree ñëw daje assemblée et Mamadou Dia nga xam ne booba moo yore woon executif bi e mu yónni gendarmerie mu occupé building bi mu occupé assemblée nationale ba nga xam ne benn député mënu fa dugg et ci loolu sax et ñi nga xam ni ñoo gënoon a fës ci député yooyu am na ñu ci defe naa jotoon a jàpp ku mel na Ousmane Ngom moo doon maître moo doon maire Thiès defe naa ku mel na André Guillabert euh, am na am na yeneen ñaar ñoo xam ne fàttaliku naa fàttali seen tur ñëw ñëw ñëw ñëwul ci man et ñu ñu arrêté leen yóbbu leen def naa commissariat central et ñeneen ñi ci des ñu occupé gendarmerie occupé foofu léegi nag euh, euh, bi Mamadou Dia bu bi euh, nu mu tuddee ci maître Lamine Gueye waxtaan ak sengoor e sengoor ni ko léegi mën nga dem sa kër nga ngeen ngeen ngeen daje fa def fa réunion bi xam nga kër maître Lamine Gueye mooy léegi la maison des avocats mm. moo nekk ci boulevard ci république bi nga xam ni boo fa jógee dem pale matul cent mètres. Mhm. donc mu dox. militant di seen palais voilà mu dox ak tànkam otom topp ko nit ñi militants yi topp ko mu dem pale gis Senghor génnaat ñëw këram. Mhm. et député yi daje je crois que defe naa 44 la ñu woon. Mhm. et voté à une écrasante majorité la motion de de censure donc mu mu mu daaneel gouvernement bi waaye nag. mën a ñëwoon accès ci building bi ñu ànd ak Mamadou Dia euh, ñoo occupé building bi ñoo occupé rajo bi occupé assemblée occupé rajo bi mm. ba nga xam ni euh, jotuñu ci mën a àgg diggante boobu daal armée gendarmerie Senghor chef d'état-major général euh, nu mu tuddati Jean Alfred Diallo ba nañu defe naa d'ailleurs sax le le 17 décembre la woon. Mm. dafa mel na émission bi dafa dafa dafa à la daaw mais 17 décembre 62 la woon. Mm. et ci ci defe naa le 18 19 décembre ci guddi googu vers 3 quatre heures du matin mm. ci la ñu jàpp Mamadou Dia. Mm. et ci la euh, gendarmerie bi aussi euh, defe naa euh, ki sant ba moo ko jiite woon moom mu dem rallier président Senghor mm. ak le général Jean-Alfred Diallo et lii moo indi jàpp Mamadou Dia. Mamadou Dia léegi nag ñenn ñi nee nañu li ko Mamadou def. Euh, coup d'état la parce que dafa tere institution yi nga xam ni constitution bi may na leen ñu mën a dajee def motion de censure et daf leen tere ñu def ko parce que dafa occuper lu assemblée nationale te amul droit ci loolu parce que exécutif ak euh, législatif dañ yaa yaa une yaa yaa une séparation des pouvoirs donc boo ko interprété sur le plan strictement légal mm. et loolu euh, mën nañ ko tuddee xëy na Euh, tentative de coup d'état mm. voilà voilà ñoom nag euh, ñi ànd ak aussi Mamadou Dia am na yeneen explication yu ñu joxe mais daal lu ma ci luñ luñ ci mën a wax wax wax wuute la woon bu amoon ci parti bi nga xam ne moo yor nguur gi mm. cee ñëkk a jiite moo mm. indi woon motion de censure bu bu mooy raison politique yi nga doon wax nga xam ne donc kon nag 62 nga xam ne donc du ay liggéeyinu gouvernement parce que <laughs> même bu bu dee politique lañu moo leen tax jóg daañ ñëw ni ah xëy na ni muy liggéeyee nangam ak nangam mais euh, ay la yowoon li koy li koy sos politique la defe naa bu ñu ñëwaatee ci bi nga xam ne aussi moo am fan yi te euh, mujjul a jàll defe naa ni politique defe naa ni la ëpp ci sabab yi xëy na xëy na moom lay doon alors euh, kon bu 1962 mën nañu jàpp ne ay raisons politique moo gënoon a nekk euh, ci suuf que leneen euh, suñu ñëwee 2012 muy ñaareelu motion de censure bi Sénégal dund ci jamonoy Abdoul mbay bi mu nekkee premier ministre waa PDS dugal ko boobu jamono sax tey sa directeur général bu Sonacos Modou Diagne Fada moo jiite woon groupe parlementaire boobu ñoom ñu yëkkati woon aussi ay argument bokk na ci liñ ko njortal ne mbiram Hissène Habré def ci taxoon ak mbiram xaalis ak yooyu yëpp daal ñàkk confiance ci moom euh, waraloon ñu dugal motion de censure est-ce que mun nga ñëwaat euh, ci ci contexte su 2012 bi taxoon sa euh, dugal motion de censure waaw boobu nag effectivement parce que sabab yi yooyu la woon parce que yi ñu en tout cas yi ñu génne mu leer waneen daal kii am na loo xam ne am lante na ko ak ak yoon mm. te ci doxalinam bi mu nekkee ci yenn kuréel yi mm. surtout ci banque yi Eh, ak jëflanteem surtout ci digganteem Bocar Samba Dièye ak guinéen boobu ñu doon wax eh, yooyu daal moo doon moo sababoon kon daal wane ni eh, kii di Abdoul Mbaye ñoom daal yaakaar nañ ñu warul mën nekk premier ministre waaw ci parce que dafa am antécédent yoo xam ne daal du nekk koo xam ne dañ ko wóolu ci kii waaye nag noo ko mënti xoole koo xam ni yoon condamné wu ko mm. et eh, koo xam ne casier judiciaire am euh, euh, vierge na eh, nga xam ne xëy na dañ ko déggal ay mbir ci ay affaires yoo xam ne dañ ko ci tuddoon wala ñu kii que parce que dëkk rëkku yoon lañ nekk koo xam ni yoon euh, waxul ni dafa coupable lu nit wax wax wax ci ay kii ay waxi xëy na mbedd la day doon wala waxi rajo wala waxi presse Eh, li ñuy wax porté presque lay doon waaye nag ci ci wàllu yoon du mën a nekk mais euh, booba rek li muy wane xam naa aussi euh, combat politique bi daal daanaka mooy mooy en dernière instance euh, sabab bi nga xam ni mhm. moo ko yëkkate woon mais booba aussi bi que PDS ak coalition soppi doon doon def mhm. eh, xamoon nañ ne du jàll parce que majorité bi bi bi bi Benno Bokk Yaakaar amoon majorité bu bu takku la woon alors ñu ñëw nag ci troisième motion de censure bi nga xam ne moo waral waxtaan bi muy bi ñu doon euh, voté alxamis bi ñu weesu gannaaw euh, déclaration de politique générale bi amoon altine groupe parlementaire yi dafa dugal motion de censure euh, ngir yu bare bare bare bokk na ci xëy na ni réew mi doxee ñu jàpp ni du gouvernement bi mooy lijjanti jafe-jafe askan bi selon argument yi ñëw joxe yow déjà acte bi ban njàngat nga ci am. waaw acte bi mooy xaw na xaw na xaw na doy waar xaw na doy waar parce que xam nga premier ministre boo xam ni eh, eh, mi ngi doogaa ñëw def déclaration politique général e eh, defagul dara loo xam ni xëy na ci liggéeyu gouvernement nit war na ci mën a tàkkee nga def motion ci censure ci moom xaw na doy waar et beneen bi mooy euh, danga koy lëkkale rek moom tamit ak euh, ni réew mi doxe xam réew mi dafa am affaire yu bare yoo xam ni fi mu nekk eh, mi ngi fi waxuma la jamono bi ñu nekk nga xam ne jamono jafe-jafe la jamono post Covid bi muy euh, jaamarlo bi am diggante Ukraine ak Russie ak jeexital yi mu am ci réew mi ci wàllu yokkute njëg ci wàllu yokkute dund ci wàllu euh, yokkum njëgu énergie li wàllu yokkum dette li wàllum déficit yi nga xam ne am na ci réew yi ci àddina si yëpp li nga xam ne surtout moo ci gën a fees mooy li ñuy wax inflation muy yokkum njëg boo xam ni weesu na fépp bu nu bu nu ko yaakaaree du du Sénégal rek fépp la voilà parce que boo demee tey jii ci pays Union européenne yi seen taux d'inflation ëpp na téeméer bu nekk fukk seen déficit yi kenn xamul na mu toll foofu léegi nee nañu même dund bi et non seulement njëg yi day yokk waaye da ngay dugg même ci supermarché daanaka doo gis léeg-léeg loo jënd li baadoo lay dundee pâtes yeeg ay yu mel noonu mburoog yu mel noonu et cetera lu xaw lu xaw compliqué la mu wër àddina. ñooñu sax xëy na mën nañ réew yu am doole lañu am nañu alal yoo xam ne mën nañ ko dugal ci yenn yi waaye Sénégal nekk réew moo xam ne réew mu xaw néew doole la. et nga xam ni ci ay subvention daanaka li ci gouvernement bi def du mi ngi toll ci diggante sept cent jëm huit cent milliards. ci réew moo xam ne xëy na sa budget ci ay quatre mille milliards la tolloon eh, dana dana xaw doy waar eh, nga am priorité ci bépp fànn eh, dana xaw waaye nag balaa nga naan naam da nga fay nekk donc foog ñu jàppale nit ak yooyu donc loolu boo ko bëggee jël ci ni dafay sabab motion de censure ci jafe-jafe yi nit ñi nekk xaw na doy waar surtout que gouvernement bi diggante bi yokk na fi payoor yi yokk na fi à la traite yi yokk na fi Euh, leneen ak leneen ci wàllu travailleurs yi e wàññi na sax euh, njëgu dund bi te xam nga di di wàññi ci jamono boo xam ne inflation la lu xaw lu xaw doy waar la. état moo koy supporter mais ñoom déjà bokk na itam ci li ñu ŋàññee ñu ne gouvernement bi dafa bari. Ah, gouvernement gouvernement pléthorique. waaw kooku du du xam nga kooku du du du du du du du sabab boo xam ne tegu na ci yoon. Hmm. parce que gouvernement ki nga xam ne mooy président de la république et. moom mooy seet eh, eh, ci ni mu bëggee doxal politique am eh, xeetu gouvernement bi nga xam ni moom la war taxawal moom kañ mbir yi na dox wala ñàkk dox mm. lii la mais fondamentalement raison yi ay raison politique la boo ko seetee ba ca biir mm. raison politique yi dossier bi nga xam ne fi mu nekk moo lëmbe réew mi nga xam ni loo ci wax wax dossier privé la muy diggante Euh, njiitu parti politique boobu ñuy wax Pastef ak soxna si ñuy wax euh, Adji Sarr mm. et diggante boobu xam nga euh, am na lu mu fi juróon ci deux mille vingt et un ah. am na nu mu lëmbee climat politique bi mm. ba nga xam ni am na noo xam ni daal dana ko parce que parti bi gën a am doole ci et coalition Yewwi Askan bi seen leader la lool loolu moo nekk ci moo nekk ci dossier boobu kon xam nga loolu et surtout que bërki démb la mu bañoon maanaam dem wuy ji wuy ji na déglu nañ ko te kenn xamul mbir mi fu mu jëm est-ce que euh, non-lieu dafay am walla est-ce que dossier bi dañ koy yóbbu ci tribunal xam nga yooyu yëpp dafay am waaw yooyu dafay am day am jeexital ci aussi euh, taxawaay ñoom bi ñuy am vis-à-vis de réew mi parce que ñoom nañu c'est un dossier politique la. complot la et cetera et cetera. te njiitu réew mi lañ ci joxoñ complot bi moom cité na nommément le président de la république. waaw mais dama li ma jaaxal mooy fan yi de Mamour Diallo laay gën dégg ñu koy wax. waaw xam nga wax <laughs> ci waaw ñoom daal. xam nga dossier yu mel noonu. Hmm. Eh, ki nga xam ne xëy na nee nañu moo ko sabab directement. léegi eh, dégguma ci benn yoon Macky hmm. ki ñuy wax nee nañu léegi et eh, Mamour Diallo moo ko sooke. Hmm. wax nañ defe naa wax nañ lool waaw donc kon nag bon da ngay gis rek affaire bi. noo ko gis gis gis. am na nu ñuy politiser. Mhm. contrairement li ñuy accuser nguur gi naan dossier bi dossier politique la. Mhm. waaye defe naa ni euh, tey jii boo ko xoolee ba xool. Mhm. Euh, parti boobu di Pastef ak waa wi Askan Wi. et dossier boobu dafa am ñoom tamit seen wàll. nuñ koy politiser parce que loolu ñoom mel na ni yaakaar nañ ne moo baax ci ñoom. def naa ni kooku aussi euh, euh, dossier bu am solo la beneen dossier bi mooy et li xew bari ki démb ci assemblée nga xam ni gis nañu ay xeex yu fa am député ñëw ngàdd moroomu député surtout muy jigéen keneen ki weq ko ci biir et ba kooku aussi dossier boobu mu ngi ci kii ba ñaar député def naa ni bërki demb jot nañ leen euh, jox nañ leen mandat de dépôt te defe naa ni altine mm. defe naa ni la ñu wax ni ci lañ leen di àtte et mu indi aussi tension parce que ay député la ñu bo ñu ngi bokk ci ci ci parti bi ñu yeewu askan wi bokk ci parti bi ñuy wax pur mm-hmm. euh, ak euh, yu mel noonu mm-hmm. et aussi bi ci mujj nag mooy aussi euh, mooy natt seen bopp mm-hmm. dañuy natt seen bopp te xam nga booy natt sa bopp e ñoom ci coalition intercoalition bi la bokkoon yeewi wàllu te intercoalition yeewi wàllu et dafa nekk intercoalition boo xam ni dafa composé de waa euh, wàllu Sénégal ak yeewi askan wi et ñooñu gis nga euh, ànd nañu waaye nag nekkuñu benn ku ci nekk dafa am loo bëgg ak di taxawaay yi aussi bokkul parce wallu euh, ki fa ëpp solo ci parti mooy PDS te PDS mooy premier parti opposition bu Sénégal mm. te yàgg na ci yàgg na ci parlement dirigé na réew mi et tout ça kon nag moom taxawaay bi muy am ak bi bi yi di am eh, bokkul et loolu aussi xëy na am na natt buñ doon natt seen bopp mm. Yewwi waa waa Yewwi nu doon natt seen bopp ci biir coalition boobu waaye def naa nag eh, gis nga ni gis nga ni mu demee mm. Euh, waa wàllu yi nee nañu ñoom mënuñu ànd ci loo xam ni dañ leen ko yëgal parce que dañ la yëgal ak liñ la boole bokkul. voilà donc euh, te defe naan ci loolu aussi dana am jeexital ci ci intercoalition boobu parce que bu buñ doon wax quatre vingt deux quatre vingt trois députés c' est parce que dafa amoon. Euh, intercoalition voilà voilà donc kooku nag nuñ koy jàngate ci wàllu politique ak perspective yeeg yooyu. kooku beneen wax la def naa xëy na dinañ ci ñëw ci biir ci biir waxtaan bien sûr kon yow lan nga jàpp ni moo euh, euh, waral dëgg-dëgg ñu mel ni wallu par exemple tey seen bopp ci mbir mi bu weesoo li ñu wax ndax wax nga sànq ni euh, ku jot a jiite nguur jiite yeneen ak yeneen PDS nekk le premier parti position mënul yem taxawaay ak doxin ak yeneen parti notamment Pastef mi ëpp doole ci ci Yewwi euh, bu dul ne dañ leen koo yëgal lan moom mun a expliquer euh, abstention bu wàllu notamment PDS. Euh, bon xëy na nekkuma ci xelu. Hmm. ak xolu waa PDS yi waaye nag xëy na mën naa ci def ay jàngat. Hmm. wax naa la ko sànq nee naa la PDS du ak ñi nekk ci wàllu du ñu n'importe quel parti. Hmm. ñoo fi jiitu ci opposition bi yore nañu réew mi xam nañ nu muy doxee. et cetera donc mën nañu wax ni opposition bu am maturité la. wute nag nag opposition beneen bi nga xam ni daf fi nekk et tey jii yi am assemblée Ablaye Wade lu nekk seq na ko ab du Diouf waaye lii am assemblée mosu mosul am ci réew mi kenn mosu fa taxaw dóorante kenn mosu fa saagaante kenn mosu fa di bloqué kenn mosu fa mais daan na am débat yu neex. yoo xam ay xeex daan na am mais. waaw mais mais deme demewul ni nit ñi daañu toog déglunte. daan na am de ay débat yu yu yu kawe de niveau maanaam ci ci wàllu xam-xam xam daan na fa génn daan nañu leeral ay mbir ci réew mi. e aussi daaw ñu def euh, confusion ci ci ci yenn kii et xam nga ñooñu duñu mën a am na loo xam ni. Euh, seen kersa ak seen sago ak seen yar ci wàllu politique ak seen expérience ak seen seen dayoo ak seen taxawaay am na loo xam ne danañ ko jomb duñ ca duñ ca duñ ca duñ ca dugg. defe naa ni loolu xëy na dana sabab loo xam ne d'ailleurs même boo gisee ni même bi lii amagul am na yoo yu bare yoo xam ne boo koy dégg ci assemblée bi doo déggoo ci waa PDS déggoo waa PDS ci dóorante mm. déggoo leen ci saagante déggoo leen ci yenn mm-hmm. kon nag ñooñu eh, am na euh, xeetu taxawaay boo xam ni aussi dañ koy am mm. ñoom aussi ñàkkul ni am na jàngat bu ñu def ci li li sabab et eh, xëy na motion de censure yi ak yooyu au-delà de ñàkk yëgal bi mm. eh, du du seen affaire affaire xëy na la xew Sweet Beauté ak conséquence yu mu am ci wàllu yoon mm. et eh, concerné wul PDS donc loo ko politiser politiser ah. concerné wul PDS bu weq député bu jigéen bi wala mu pes ko mm-hmm. wala lañu ñu seq ak yooyu xëy na ñoom xëy na concerné wu leen mm. et beneen ba aussi mooy aussi euh, euh, euh, leadership maanaam opposition bi mm-hmm. ci intercoalition bi euh, PDS coalition boppam la am muy wàllu bañ nañ ko ba tuddee ko intercoalition yeewi wàllu mm-hmm. donc ñoom même politiquement mm-hmm. ci ni ñuy taxawalee intercoalition bi mais ñoom wane nañ seen bopp mm-hmm. kon nag euh, dafay waral ci diggante euh, seen diggante respect am ci et puis nawlonte am ci étant entendu que képp ku sos parti politique wala nga sos coalition mais jiite réew mi ak euh, euh, ëppale nit gagné élection moo la tax jóg kon nag euh, ki nga xam ne doonte da nga fa am nu ngeen ànd ci coalition ci électoral mais du ngeen mayante dara ci yenn fànn yi loolu aussi mën na ko expliquer mais au final boo xoolee résultat bi lan la jur mel na ni euh, autant wàllu moo tax ba élection bi passé malgré que minorité la woon par rapport ak Yewwi euh, mais apport bi mu indi tax na ñu naan opposition 82 euh, pouvoir 83 waaye léegi conséquence u motion de censure bi mais mooy loolu dafa mel na door na di tasaaroo nga xam ne de plus en plus léegi da nga naan Yewwi ni Wallu et puis ni pouvoir bi mm-hmm. Benno Bokk Yaakaar Bokk Yaakaar ba nga xam ni ci vote bi parce que motion de censure kenn du compter ñi ñi ànd ak gouvernement bi mm-hmm. waaye ñi àndul ak moom lañu la ñuy compter te bañ ko defee juróom fukki député ak juróom ñoo voté ñoo ñoo ñoo voteel motion de censure bi mm. et mu wanee ni téeméer ak ñaar ak fukk et eh, voté ko kon nag am na nu Yewwi defee erreur politique parce que mu ngi contribuer isole boppam te bu dee moom kese fii réew mi toll bu ñu doon dem tey jii ci élection même présidentielle ragal naan du gagné donc politiquement am na ay conséquences yoo xam ni en fait léegi mën na mën na ko jur ci ci wàll woowu kon nag ragal naa ni un peu erreur politique ak même euh, jiital xadar parce que xam nga politique léeg-léeg foog nga aussi sa xel nga nga nga jiital sa xel bañ bañ bañ jiital sa xol hmm. waaw mais boo giitalee sa xol léeg-léeg dafay indi ay njuumte yoo xam ni mën na am ay conséquences yu graves surtout que tey jii eh, ñoom fii ñu toll ak eh, yenn dossiers yi nga xam ne xaw na am eh, truc et puis surtout que sénégal yi bëgguñu fitna aussi hmm. parce que PDS am na expérience hmm. nga bi Ablaye Wade euh, den def proposition bi gën dur bi pratiquement daawul weesu dix pour cent. ci électorat bi ah, li amoon quatre eh, gis nga li amoon euh, après quatre bi mu duggee ci ci gouvernement bi gis nga li mu jur ci la treize ci la gagné Pikine gagné Dakar gagné beaucoup beaucoup yeneen yeneen kii yi et ñëpp xam ne presque partie bi bu bu bu kon ne ni bu yàggul dana dana ñëw ci nguur gi et gis nga aussi. Eh, après à partir de 94 bi mu duggee ci gouvernement bi. truc donc ñoom comprendre nañu kër réew mi. am na xeetu opposition boo xam ne boo koy def. Mm. au début mën na mel na euh, xale yi ndaw yeeg ñi nga xam ni kii nañu topp nañ la mais bu yàggee tuuti am na foo xam ne bu fa àggee dañuy taxaw mm. te dafa mel na nag opposition bi ma gis nii waa yeew yi il faut que daal ñu xaw a seetaat seen bopp saytuwaat seen bopp. parce que euh, lii am assemblée bi mu ko amee ba pare am na ci sénégalais yoo xam ne sax doo doo man mi wax nañ ni lii ñu gis daal est-ce que waruñu def sax de loo xam ne mooy dañu war a tas assemblée bi ñenn ñi ni ma ah Macky Sall fii ñaari at mënul tas assemblée bi man leen déet Macky Sall article cinquante et un constitution bi may na ko ci bépp loi boo xam ne daf ko bëgg def wala mu yéene ko def ci réew mi bu informer président assemblée informer président conseil constitutionnel mais mën na woote référendum mën na woote référendum nii et disposition boobu doon euh, tere wala sax mu woote référendum carrément ni nañ tas assemblée bi. lan moo tax damay ragal ni ci jamono yi ñu bu wootee woon lu mel noonu boo def ndànk nit ñi Sénégalais yi woote ko parce que nit ñi meroon nañ trop ci ci ci ci ci lay xaw sa assemblée. ci xeexoo yi. ci xeex ak ak comportement yi nga xam ni rek. Mm. vraiment parce que nit boo ko falee lu toll na assemblée. Mm. ñuy presque dix huit millions Sénégalais ñu tànn ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom. Mm. xam nga ñooñu ñu nekk n'importe war waruñu am n'importe quel comportement. war waruñu tilimal wala ñu gàkkal deru Sénégal. ci ci bitim réew parce que boo gisee télévision tubaab bi ak yenn réew yi nga xam ne xëy na démocratie sénégalaise xëy na neexu leen am nañ ci prétexte di passer en boucle yenn image yi naa leen xool leen démocratie sénégalaise mais heureusement yàlla def na jàmm parce que ñoom ba ñu delloo seen kër xam naa ne xool seen waa kër xool seen waa koñ xool ña leen faloon xam nañ ni def nañ njobbe et moo tax ragal naa ni gis nga keroog discours de bi ñu premier ministre ñëwee discours de politique générale bi ak la ci topp yëpp defe naa la doon am daanaka ama amatul bon nag defe naa xup xupp boobu réew mi xupp leen def naa ni eh, baax na ci mais aussi gis nañ ni la ñu yaakaaroon ci wàllu yoon que ni député dafa am li ñuy wax euh, immunité totale boo nekkee député particulièrement boo nekkee à l'assemblée en session loolu amul parce que loi bi nee na flagrant délit voilà et ensuite euh, immunité bi nga am mooy ci ci kàddu yi ngay génne ak Euh, position yi ngay jël ci wàllu kàddu ci assemblée waaye nag àggul ci dóore àggul ci weqe àggul ci def yu mel wala jël siis di ko sànni wala yu mel noonu mm. àggul àggul foofu kon nag defe naa euh, euh, am na daal liggéey boo xam ni mm-hmm. surtout que société bi léegi ni mu wala parce que bu njëkk ku nekk daawul nekk député mm-hmm. mais léegi gis nañu ñee nekk député sax ñenn nañu dem nañ sax ba nii est-ce que waruñu wax sax ko am ko amul diplôme sàngam Eh, doo dem doo doo nekk député waaye waaye defe naa daal e président assemblée bi ak euh, kuréel yi jiite assemblée war nañu góorgóorlu pour ñu jéem seet nu ñuy former mm-hmm. et renforcer ci capacité ci bépp fànn mm-hmm. député yi am léegi parce que defe naa ni par rapport ak ñi amoon bu njëkk parce que bu njëkk parti ñoo daan def formation yooyu mm-hmm. mais léegi parti yi école de voilà voilà mais léegi xam nga formation amatul Eh, ku nu yaakaar ni daal am nga nit mm. eh, ñu jël la tàbb mm, la léeg sax mën na lire rek mënul lire e nee nañ foog nga mën liir booy nekk député ak mën a bind mais gëw ma ni sax ñenn nañu bu ñu leen soumettre woon ci loolu xëy na dinañ ko mën mais ah. aussi am na jeexital boo xam ne aussi jafe-jafe yi amoon ci parrainage bi aussi jur na ko aussi ci xeetu député yi nga xam ne ñëw na def naan bu ñu ko évaluer yooyu yëpp def naan war nañ ko jël en euh, mais bu weesoo par exemple amadu Ba mii doog a ñëw xëy na ak gouvernement wam est-ce que tam réew mi ak ni muy doxee ñu ciy jooytu lu bari euh, xëy na ñàkk tëddee njaaxanaay bu justice. impunité bi après yenn rapport yu yu yu yu doy waar yi nga xam ni corps de contrôle yi dañ koy génnee bu ñu ñëwee déjà ci wàllu justice ak ni muy doxee tey est-ce que loolu tam du problème rek boo xam ni xëy na jar nañu xoolaat yëf yi. non gis nga justice defe naa ni ni ñu koy waxee noonu amul amul yooyu problème euh, maanaam euh, li ñuy wax le parquet xam nga parquet moom. Ah. daanaka dafa euh, jokkaloo ak pouvoir. Mm-hmm. mais magistrat yi nga xam ñoo nekk magistrat chaise maanaam juge yi. Mm-hmm. et ñooñu gis nga ni ñu taxawee. gis nga même dossier bi ñu dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. gis nga tey jii eh, ku ci nekk yaa ngi naan eh, eh, maa am dëgg wala aw ma dëgg nangam ak nangam mel na ni ñëpp daal léegi mel na ni xëy nañu am nañu yaakaar ci justice. Sénégal nag léeg-léeg bu ko justice arrangé surtout politicien dafa naan justice baax na su ko arrangé wul mu ni justice baaxul mais Sénégal piliers yi ko tax taxaw ba léegi et justice la et chaque fois bu amee ce qu'on appelle les grands dossiers surtout les dossiers à caractère politique muy dossier Ablaye Wade dossier ñoom Landing Savané dossier ñoom Pape Malick Sy Moustapha Sy et cetera 88 93 94 et cetera euh, gis nañu chaque fois que justice sénégalaise dafay wane ni c'est une bonne justice et dans les grandes occasions dana rendre les les décisions qu'il faut mais politicien nag moom la kenn mënul atte parce que boo ko àttee ñàkkal mu ni eh, baaxul boo ko àttee leneen mu ni mu ni mu ni baax na def naan daal loolu aussi war nañ ko xool li ñu am ci justice xëy na benn atte bu dul bu yàlla matul benn atte bu dul bu yàlla waa defe naa suratu ci ni yàlla def presque loolu la ko jeexale kon nag euh, kenn rek moo mën a atte mooy attekat bu mag bi attekat bu mat bi kooku mooy yàlla waaye atte nit foog dana manqué parce que ki xamul démb bu mat xamul tey bu wér xamul ëllëg bu wér kooku atteem dafay xaw day xaw doy waar ki nga xam ne dana wuute kee wuute mënta xam lépp waaw mënta xam lépp kon nag nañu xam ni eh, eh, comme on dit c'est la justice des hommes hmm. maanaam atteb nit ñi la mais atteb nit ñi dana am di am ci waaye nag buñ ko lépp mën na manqué ci atte ba mu des par parloo bu ci par parloo am te ragal naa ni euh, justice bi ñu am deful par parloo xëy na dañ ko koy jiiñ nag hmm. dañ ko koy jiiñ waaye jiiñ boobu bu ñu demee léeg-léeg en fait duñ ko ci duñ ko ci fekk waxuma nag ni moo gën ci justice yi ah. waaye nag dama ni euh, tane na hmm. justice yu bare voilà d'accord alors léegi nag ni ni ñu yoree euh, alalu askan bi dañ laan ni deniers publics yenn saay euh, rapport fan yi yëpp sax génn na mais yenn saay nga digg ci yoo xam ne da ngay ne est-ce que ñun am nañu réew Euh, rapport ARMP bi nga xam ne mooy euh, lijjanti marché yeeg niñ koy joxe euh, moo génn keroog lataa bu cour des bi mais bu taxawee ci boobu rapport rek yaakaaroon ne cëslaay la peut-être pour opposition bi mën a ŋàññ nguur gi de manière générale même bu jéggee premier ministre. bon waaw euh, effectivement ak rapport yi ko jiitu te amul suite ay nag ak yeneen ak yeneen. waaw foofu moom defe naa ni fan yi képp kuy sénégalais. ci bépp boor boo mën a bokk am nga loola naqari ci sa xol bi rapport Cour des comptes bi génnee mooy lama la doon wax ci njëlbeelu suñu waxtaan ni la et eh, il faut que euh, institution yi ak pouvoir yi di arrêter pouvoir yi donc gis nga Cour des comptes nga xam ni ci ordre judiciaire bi la bokk nga xam ne mën na def autosaisine et seetul li xew situation politique wala yooyu mais def na liggéeyam mm-hmm. et puis génn na ko Sénégalais yëpp jot ci. ba par parloo amoon voilà donc kooku war nañ ko gërëme santé yàlla ci institution yi réew mi am mais surtout mm-hmm. magistrats yi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen ci cour des comptes et aussi war nañu aussi xam ni cour des comptes dafay saytu mm-hmm. te bu saytoo et mën na jiiñaate moom mën na def ay sanctions cour des cour des comptes waaye ci en matière de faute de gestion am na li ñuy wax la cour de discipline budgétaire waaye nag bu fekkee dafa am ay délits e justice lay saisir parce que justice bi ñu àtte loolu kon nag ci dossier yi bare yi mu saytu gis nañ daal am na ci ay jalgati ay yoo xam ni yaakaar na ni ay délit la ci recommandation nag yi mu def nguur gi nee na ko diw diw diw diw sangam ndax lii ak lii ak lii ak lii nanu yóbbu seen dossier ci yoon te defe naa ni bi yoon et ragal naa ni et yóbbu ci yoon boobu du mën a ñàkk waaye nag c'est parce que Sénégal day démocratie am ay institutions yuy dox moo waral léegi et lu waay def non seulement day génn mais am nañu aussi une presque indépendante libre boo xam ne aussi dafay jouer un rôle d'alerte te defe naa ne loolu baax na li ñuy wax nag corruption moom euh, defe naa ne bu ñuy wax ci jàngoro yi moo ci yées parce que moom cancer la parce que jàngoro la boo xam ne day rey day faat mu yéex mu teel day faat mu yéex day faat kon nag lu ñu war a def rek mooy lu ñuy buddi la sànni et dafa wër àddina si nag dégg nga euh, fan yi vice présidente union européenne alal la ñu fekk ci biir fa mu dëkk hmm. moom ak yeneen ñaar ba ñetti nit hmm. am na yeneen ak yeneen dossier hmm. ci ay France mu États-Unis muy feneen muy feneen muy feneen waaye nag comme on dit du man rek bokk ma ci moo ko gën wala maa ci tane eh, moo waral nag Sénégal def naa ci suñu taxawaay nguur yi eh, xeex corruption ak détournement deniers publics parce que d'abord yemuñu ay France ak États-Unis parce que ñooñu sax xëy nañu woomal nañu waaye ñun ci réew yu ñàkk lañu bokk. surtout jamonoy Covid bi nag jamonoy Covid. et jamono Covid nag aussi li accéléré loolu. xam nga boo nekkee ci situation de de crise créer ay procédure d'urgence mm-hmm. et ñee gàmmu ak ñee ras dem bokk mm. ñu bari mën na jëm ñee dem dañ ciy dugg xëy na li aussi accéléré mm. processus boobu et ñooñu ñooñu xëy na on peut mën nañ leen tuddee sax ay bu doon temps normal xëy na ARMP wala dinañu am temps exactement donc procédure d'urgence yooyu d'ailleurs am na ñoo xam ni alerté woon nañu ni procédure d'urgence yi ñu def mën na indi de grands problème en termes de gouvernance donc defe naa ni kooku aussi dañ koy intégré ci contexte bi sans pour autant mu justifier wala mu setal qui que ce soit kon nag defe naa eh, li war daal ci dossier yi mooy jébbal ko yoon yoon def liggéeyam parce que kat ñii ñuy wax ñëpp dañ leen taqal li ñu leen am na walla amul kooku tribunal kese moo ko mën a leeral lii daal laa ci bëggoon parce que am nañu ay borom kër lañu am na ñu ndey am nañu baay am nañu famille am nañu mbokk am nañu ay xarit mm-hmm. et euh, ñoom laak du ñoom mm-hmm. et Cour des mm-hmm. euh, euh, gis na ni am na indice yu bare yoo xam ne wane nañ ñii ay délit yu xaw garaaw la ñu def et dañ ko war yóbbu ci ci tribunal kon nag defe naa ni li war fii réew mi toll et particulièrement ci président de la république ak euh, gouvernement bi et particulièrement le procureur mooy ñu yóbbu dossier yooyu euh, en justice mm. yaakaar nga ne dina am suite par rapport ak yeneen dossier yoo xam ni ay rapport tamit la ku mel ni nag yóbbu na ay rapport yu bëree bëri euh, ci kanamu procureur wante mosul am euh, ñoo xam ne topp nañ leen selon ces rapport là waral peut-être sax nit ñi jàpp ne réew mi impunité totale moo fi am est-ce que loolu itam du wàllu tey majorité présidentielle bi ñu renverser la tendance wan nit ñi dëgg-dëgg ban tànk la Sénégal di doxee ci loolu non xam nga man dossiers yi damay dégg rek léeg-léeg ñu koy wax léegi porté presque dafa bari ci réew mi et puis yal na ma yàlla baal léegi doomu aadama yi dañoo xaw a bëgg safaan daal hmm. même boo amee journal boo bindee safaan hmm. yow journaliste nga wala journal rajo bi wax safaan wala télévision bi wax naka nit ñi dégloo ak nañuy jënde journal bi du bokk te ku ci nekk da ngay seet rek bu doon yowoo wala muy sa njaboot mais loolu nag dafay wala wala wala tax donc li ñuy li ñuy wax ci OFNAC hmm. et euh, defe naa euh, dañu mel na lu buggoon jox OFNAC rôle boo xam ni euh, ci liñ ko jox ci rôle amu ko ñenn ñi sax jël ko di ko xeexe kon nag euh, nañ ci xaw maandu tuuti nañ ci xaw maandu tuuti tax taxalaate bi ak coxor gi dafa xaw léegi bare wër réew mi nit ñi dafa mel ne daal léegi eh, balaa ñoo am jàmm eh, topp diw topp diw ba diw ñu tëj ko wala diw dee wala diw xaru wala diw nangam ak nangam euh, vraiment nañu gën a nañu gën a dal gën a def ndànk te xam ne réew mi eh, ñun ñëpp a ko bokk. et am na nag loo xam ne jaaduwul du kii waaye nag léeg-léeg comme ni ñuy wax nii eh, ci yoon et eh, bàyyi ku def dara sax moo gën tëj ku deful dara mm-hmm. kooku ci mandute la bokk. bàyyi ku def dara. Mm-hmm. bàyyi ku def dara. moo gën tëj ku deful dara. moo waral yenn saay justice di bàyyi nit ci bénéfice du doute. exactement exactement donc ndax bañ a tëj ku deful dara. Eh, exactement exactement sénégalais yi nag léegi dafa mel ne daal eh, eh, bon waxuma sénégalais sax waaye daal mel na daal jamono jamono bi ñu nekk daal xaw na doy waar. doy na euh, leneen euh, xëy na ñu ragal ci mu jural réew mi ñàkk dal mooy troisième mandat euh, politique. kenn mënu koo tàqalee ak économie li ma ko waxee sànq ndax réew mi bu dalul dara du dox rawatina koom-koom bi club Sénégal émergent nga jiite question politique yu bari wala question yeneen yu baree bari da ngeen ci am taxawaay da ngeen ci am jàngat ndax ne loolu dafa bokk ci li nga xam ne bu ñu ko ñàkkee rek euh, koom-koom bi dootul dem te bu koom-koom doxul foog naa ne dund dina jafe alors ñuy ragal instabilité jóge ci troisième mandat bi nga xam ne amaguñ ci benn information xamaguñ ndax président Macky Sall da koy wut du ko wut ban taxawaay la ci kuréel gi nga jiite am ak euh, nu ngeen jàngatee tey situation politique bi. waaw foofu moom je crois que euh, jërëjëf effectivement gis nga lii am yëpp ci affaire gouvernance mm-hmm. ak euh, corruption détournement de deniers publics gis nga suñu rapport yi ñuy déclaration yi faral di génne dañ ci souvent insister. Mm-hmm. et ba léeg-léeg sax ñoo xam ni xëy na ci ko langa nguur gi la ñu la ñu mm-hmm. dafay mel na xëy na. loolu xëy na mën na leen naqadi waaye nag euh, li Cheikh Ibrahima Niass doon wax rek mu ni eh, euh, man daal xarit bu bu muus moo ma gënal xarit bu dox non mu ni euh, noon bu muus ah. moo ma gënal bu dof eh, ànd ak nit léeg-léeg eh, di ko gindi baax na ci mm-hmm. di wax li nga xam ne ñëwagul léegi nag bu ñëwee ci mbiru mandat bi yooyu xam nga club Sénégal amee bien que dana wax ci wàllu wàllu politique waaye yenn question yi nga xam ne dafa dugg dans la politique nga xam ne dafay tax nit ñi ku nekk wane fi nga far kooku club bi généralement du ko faral di def waaye man nag en tant que nit di homme politique di président club bi ak yooyu am naa ci ay gis-gis parce que defe naa ni bu ñu gars yi wax sax ñi nga xam ne ñoo daq di jëkk défendre l'idée du de que Macky mën na am beneen mandat defe naa ci laa bokk parce que def naa def naa benn interview def naa janvier xawma ma février deux mille vingt la ci RDV wax naa ko ci defe naa ni li président mujj wax dëggal na ko waxoon naa ni kat man constitution bi ma liir ak xam-xam bi ma am ci wàllu yoon ak expérience bi ma am ragal naa ni comme que amul euh, li ñuy wax ay sart euh, yoo xam ne dafay dafay artu et mandat bi buñ koy wax mandat cinq ans bi moo tax ñu koy wax te defe naa gis nga président nee na ci wàllu yoon euh, amul benn lenn loo xam ne mën na ko gaar pour mu présenter wu nag léegi li ci des moom décision am la moom Macky Sall en tant que nit koo xam ni et dafa nekk nit am honneur mm-hmm. am dignité mm-hmm. am euh, noo xam ne xëy na mën na koo jànge ay situation mais aussi nekk ku jiite parti bokk ci euh, coalition boo xam ne moom la wax bokk ci APR bokk ci coalition bu ñuy wax Benno Bokk Yaakaar kon nag kooku et wax na ni muy taxawee la ma ca waxoon mooy loolu ci wàllu yoon daal gisuma loo xam ne mën na très présenté parce que yoon buy dogal du dellu ginnaaw bu waree dellu ginnaaw dañ koy bind ca yoon woowu. d'accord te binduñu mooy li ñu wax ci discours amul amul ci kii bi. Ah. rax ci dolli ba ñu yónnee projet. Euh, référendum bi 2016 euh, le conseil constitutionnel parce que dañ ci bindoon disposition boo xam ne daf doon wax ni mandat bi Macky Sall def bu juróom-ñaari at yi ci la bokk ci décompte bi mm. ñooñu bif que wane ni président loolu. Euh, mënuñu koo bind war waruñu koo bind parce que loi bi du rétroactive mais aussi mandat bi nga xam ni passé woon na sénégalais yi voté woon ko ci constitution boobu kooku bokkul ci mandat yi nga xam ne danañ ko war wañ su ma ko waxee rek ci waxin boo xam ne wax yu yombal la mhm. xëy na bindewuñ ko noonu waaye boo ko waxee ci waxu boo xam ne da ko tënk ci ci noonu lay demee léegi nag li ci des Eh, mooy ñi nga xam ne dañuy te booy réew mi de fitna def fii am nangam ak nangam mais sénégalais yi aussi il faut ñu xam ni fii réew état de droit la te état de droit kenn du fajal sa bopp kenn du àtte sa bopp état de droit loolu moo ko lal kenn du fajal sa bopp daa am loo naqadi waaye doo ko fajal foog nga dem tribunal ba mu ni am nga yoon wala am amuloo yoon nga seet nooy taxawee nit aussi du àtte boppam foog yoon àtte la. kon nag am nañu kuréel yoo xam ne ñu ngi fi conseil constitutionnel mi ngi fi ak yooyu lu mënti xew surtout rax ci dolli ki nga xam ne ñoom moom la ñuy tuumaal mais waxal gul ni candidat la waaye donte dafa waxoon ni candidat la et conseil constitutionnel mi ngi fi dana wax ndax candidature baax baax na wala baaxul mais ki nga xam ne mooy peuple sénégalais nga xam ne moo nekk ci kaw ñëpp ci wàll wow mais moom et bu yaakaaree ni kii war woon présenté wu e dana ko sanctionné su yaakaaree leneen aussi dana def kon nag di dugg di génn di wër ci surtout boo fekkee da nga ne yow société civile nga du ma nangam ak nangam ba daan taxaw réew mi dafay am fitna am fitna ku indi fitna. mais dañu jàpp ne dellu ginnaaw la ndax 2011 situation lañ nekkoon ñëpp xeex ko moom président Macky Sall bokkoon ci ñu ko xeex tey ñu ñëwaat 2022 bugg a nekkaat ci situation boobu loolu tam problème la. déet président Macky ba ko xeexee aussi. et conseil constitutionnel wa la mu wax gaa yi bëgg kon ne toog place de l'obélisque dafa leen man jóge naa fi. mu dem campagne man maa ngi maa ngi dem campagne kon kon moom nangu woon na la yoon waxoon. Mm. amoon na yéene pour dakkal ñaari mandat yi. Mm. waaye yoon yoonalu loolu. léegi nag ci moom la des. Mm. su dee léegi aussi dafay présenté wu mais nag que nit ñi nanguwul léegi nag ba xaar lu yoon di wax. ñu askan bi mu àttee léegi nag bu yoon waxee dëggal loolu. et li ci des askan wi mooy parce que lu mu ci mënti doon rek askan mooy mooy mooy mooy am le dernier moo mooy am le dernier mot parce que tey jii bu yeewoon suba wootee référendum ñi même disposition boobu koy dindi bu ko référendum bi dëggalee mais day nag bu nit ñi euh, li li di wax maanaam euh, euh, parenthèse bu ñu ubbi mm. eh, jarul toj ñëw rek mm-hmm. kon nag dem ci sëriñ si nangam ak mooy indi tension ci réew mi boo xam ni amul te réew mi bu nit ñi fàtte ni on a un état de droit mais on a am nañu état boo xam ne état bu bu am taxawaay la boo am taxawaay léeg-léeg mën nga ko bett mën nga def yenn kii ak yooyu mais boo ko jéemaatee daa xam ne euh, du sotti du sotti Sénégal démocratie la bu fi nit indi leneen ñee taxaw di woote transition d'ailleurs am na suma benn xarit euh, Alioune Tine suma suma xarit daje nañ ci benn émission RTS loolu laa ko wax ma ne Sénégal weesu na transition Sénégal du li ma koy wax du du proto démocratie maanaam du démocratie yooyu nga xam ne ñu ngi leen di tabax. démocratie bu taxaw la. ñenn ñi def nañ fi ay conférence nationale def nañ fu nekk ba ñu yeew suba waaye réew sangam ak sangam ñoo raw Sénégal. waaye gis nañ réew yooyu léegi presque ay coup d'état moo fa amaat. kon nag bokkuñu comme que ñenn ñi nag dafa mel ne xëy na ci loolu la ñuy dund eh nañ leen bàyyi ci loolu ñu nekk. waaye nag bu waxtu woo jotee danañ xam ne le peuple sénégalee am na yoo xam ne du ci dugg moom daal la mu war def def dana ko def bu waxtu woo jotee. man daal lii mooy mooy. kon daal tension politique bi ñuy jort ak koom-koom bu nërmeelu beeg yooyu yëpp jàpp nga ni daal dara néew. non koom koom-koom bi nërmeeluwul koom-koom bi xëy na dafa am ay jafe-jafe. Hmm. xam nga am nga nërmeelu mooy wëlbatiku. waaw waaw mooy daanu ba ci wett ci suuf. <laughs> waaye nag euh, fi mu nekk am na ay jafe-jafe. Hmm. mais économie bi mi ngi jógaat presque taux de croissance bi ñu am 4,8 pour cent la ren. et ñu ngi koy séentu mu nekk plus de 10 pour cent. Euh, année bi bii di ñëw ñu ngi xaar pétrole bi ñu ngi xaar gaz bi nit ñaa ngi bousculer pour ñëw investir Sénégal et cetera et cetera Sénégal am na code boo xam ne baax na infrastructure yi ñu ngi koy defar ñu ngi yokk école yi ñu ngi yokk université yi ñu ngi euh, gën a tabax euh, kuréel yi nga xam wàllu santé ci wàllu formation professionnelle wàllu emploi ak yooyu réew maa ngi def ay jéego waaye nag comme on dit daanu dajul suuf waaw waaye nag na na nit ñi góorgóorlu te xam ne nag jàmm ak salaam ci lépp xaj ci lu baax réew mi lépp lu koy xañ jàmm di ko xam salaam na kii léegi nag réew mi dafa am yu yu yu raxante daal hmm. dafa am ay dossier personnel yu raxanteeg ay dossier politique yu raxanteeg leneen ak leneen parce que xam nga mosoo fi dégg ñu ni euh, leader politique sàngam bu mag dafa am lu ñu ko jiiñ lu lu loo xam ne daanaka neexul sa dégg ci nopp ba ay bakkan faatu ci ba ay bakkan faatu ci xam nga yooyu yëpp dafa dafa rax ci politique bi ba nga xam ne léeg-léeg nit ki la koy tax di yëngatu. Hmm. Eh, parce que xam nga gàcce dafa garaaw. bokkul ak yittey askan wi ñaare. voilà voilà voilà diggante nag xam nga gor boo kon bu bu naree am gàcce surtout gàcce mbooloo. Hmm. nga jiite mbooloo ñëpp gëm la yaakaar la ak yooyu. dana indi léeg-léeg ay comportement yoo xam ni. Hmm. des fois sax du nekk comportement nit. Euh, nañu delloo xel yi rek te xam ni lépp ci biir ay doomu réew mi la. Euh, li askan yu bëgg. Euh, mooy sababu yàlla faaw dana am kon nag bu nu ko yàkkamte Ablaye Wade def na vingt six ans opposant waaye ba wax yàlla ba ko yàlla tuddee Ablaye di ñëw na ci nguur gi yow barki dem nga créé parti nangam ak nangam ni tey jii bu ma nangam bu ñu ma def loolu nangam ma réew mi tukki àddina tukki du noonu ñun ñëpp nañu xam ni Sénégal la ñu am amuñu feneen démocratie bi ñu am mooy li nga xam ni mooy li gën a suñu gànjar bi gën a mag maanaam bu ñu doon wax gànjar xëy na ñu ni jamaa moo ci gën a moo ci gën a kawe ci gànjar mm. mais jamaawu Sénégal moom mooy démocratie mooy jàmm mooy surtout tolérance maanaam ci biir xeet ci biir waaso mm. ci diggante ñoo xam ni nitu diine lañu waaye bokkuñu diine loolu nag lépp lu ko nar yëngal nar ko nar ko nar ko nar ko nar ko salfaañe mm. et te xam nga Sénégalais yi aussi dofuñu parce que réew ñi nga xam ne yeewoon nañu suba wéy eh, nañu moom suñu bopp ci lépp nangam ak nangam gis nañ ni réew yi ñu dendal eh, ñaka defoon tey jii e ña ngay dellu ca la ñu jóge woon e di wéy sama xarit di du sama xarit damay am su ma monnaie bopp nangam ak nangam gis ngeen situation Ghana Ghana ñu njëkk am monnaie depuis Nkrumah la cedi bañ ko amee kenn xamul kenn tey jii Ghana euh, presque dafa nekk en cessation de paiement daa fallu FMI banque mondiale ñëw defal ko ay plan de rééchelonnement pour mu mën fay borom. kon nag aventure nit def koy moytu nañu def ndànk parce que ñi fi nekk suñu euh, papa yi suñu ñi nijaay yi suñu nangam nangam ba ci ñun ñii ak ñi ñuy wutu ëllëg mais réew mi ay réew mu borom xel lañ bu loolu yenn yi gënoon ci réew mi ñoo ñu def ko waaye nag nit ki am na li nga bëgg ak am na li mën nekk te lii mën nekk léeg-léeg day faral di wuutee ak li nga bëgg parce que day lii mën nekk day nekk li nga bëgg ak li jamono indi léegi nag am xel mu ngi mi ngi bokk ci def ndànk mu mm-hmm. ngi bokk ci éviter topp sa dënn mm-hmm. éviter topp sa xol di demee xel te xam ni responsabilité bi homme politique yi ak leader yi am mm-hmm. mooy responsable yi ci dix huit millions Sénégalais yi te njuumte bu ñu def et eh, mën na daanaka yóbbu ci réew mi ci conséquence yoo xam ni kenn euh, mënu koy d'ailleurs moo waral ñu bare d'ailleurs compte tenu ni président Macky Sall yore réew mi ak taxawaay bi mu am ci réew mi am ko ci Afrique ak ci ci ci ci àddina si moo waral de d'ailleurs ñu bare loolu la ñu wax nii en fait euh, opposition bi gëmul nii mën na gañe Macky Sall donc boo gisee campagne beeg propagande bi troisième mandat ak yooyu yëpp en fait xëy na loolu. xëy na dañoo ragal ne bu demee mën na gañe mën na gañe parce que nit ñi dofuñu te aussi nit ñi lu leen di yóbbu ci ay jafe-jafe wala ak ay fitna eh, dafay doy waar parce que euh, sénégalais eh, <laughs> euh, mën na la jox lu bare waaye nag bu bu desee mu lu may nag mu jox la dundam jox la poosam jox la biiram eh, dafay sedd muy def. waaw kon nag euh, nañu nañu def ndànk daal. nañu def ndànk li ci kanam rawuli bët si yooyu kàddu la ñuy jeexalee waxtaan wi bàyyi la rek nga tàggoo. voilà soxna Fatou maa ngi lay gërëm maa ngi lay gërëm waaye mayaat nga ma tey occasion ñu waxtaan ci yu bare fi ma jeexale rek lay laay baamtuwaat. Mm-hmm. waneen daal réew mi ñun ñëpp ko bokk. réew mi kenn gënu ko bugg sa moroom ñun nag ci yàlla daf ñu bind. Mm-hmm. comme que ni mu ko waxee ci alxuraan nee na dama leen bind ngeen nekk ay xeet nekk ay waaso. Mm-hmm. E yoo xam ni bokkuñu waaye nag kooku du du du pour ngeen jàmmaarloo waaye loolu yërmande la ci yéen yërmande googu nag wuute moo koy indi te wuute nag ci xalaat wuute ci xel wuute ci doxalin e waaye nag mu am sart yoo xam ne moo leen tënk ci bu wuute ba ñëwee dafa am solo te loolu moom la ñuy état de droit ak démocratie loolu nag mooy li nekk Sénégal waaye ku bokkal ak moom xalaat yan na dee wala boo ko man ak xalaat dégg naa ci sax kenn ci benn télévision mu naan eh, képp koo xam ne da nga doon wax Macky Sall am na droit troisième mandat bés bu ñu jëlee nguur gi danañ voté loi ñëw ñooñu ñëpp ñu jàpp leen tëj seen famille nangam ak nangam man ne mais kii dof na <laughs> ma ne que mais même ci les pures euh, dictatures loolu loolu am fa xam nga boo ay sénégalais ay ndaw di ay intellectuel mm. jàng dem ba de ba di wax loolu mm. ça veut dire que réew mi war war na war nañ def attention. Hmm. war nañ def attention donc daal loolu laa mën doon wax di la gërëm di la sant di la wax ñi ngi am yaakaar. Hmm. parce que réew mi moom dafa mel ne saa bu demee ba ñu foog ni xëy na mu ngi waaj a nërmeelu. Hmm. dafa mel ne dafa am leneen loo xam ni. mooy ñëw indiwaat ko. gis nga kaaw assemblée. waaw ni ci nit ñi demoon sax ba. ku mel na man nii nañ ko tas. e gis nga bërki démb discours politique général bi. ak même ci motion de censure bi. gis nga débat boo xam ne dana tàng. waaye civilisé na ku nekk jox nga seet cër sa morom démocratie nag du dara lu may loolu nañu fexe ba loolu daal ñu sàmm ko am na solo jërëjëf euh, monsieur Youssou Diallo PCA bu Sonacos nekk itam président club Sénégal émergent moom la ñu doon dalal ci seen émission démb ak tey euh, ci tolluwaay réew mi ak euh, koom-koom beeg yeneen la ñu jeexalee waaye li sababoon waxtaan bi mooy motion de censure yi Sénégal jot dundu muy bu 62 2012 ak bi am barki démb ca assemblée nationale ñu gërëm leen ci déglu bi gërëm jaawo Diallo mi newoon ci jàppandal gi di leen dig daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen woon ci kàddu gi émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci suñu chaîne YouTube mi TV officiel jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm